والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu tur mooy Hamdi Moustapha Diop di jëwriñu daara ji di daarul Habib yi tahfiisil Qur'aanil Kariim wa tarbiyatil islaami wa tadris al ulum shar'iyya di daara joo xam ne mbooloo mu takku mi ngi fi ndax li fi nekk toll na ci ñett téeméer ak fanweer muy ay góor ak jigéen. di daara joo xam ne it eh, dafa làmboo di jàngal ñu mën a wax amit ab xaaj bu fi nekk boo xam ne ci ñu wax la muy ñi nga xam ne ñoom ngi doon jëflante léegi. ci wàllu benn xaaj bi nga xam ne moom dañ fay nekk di jàng te mënuñoo wax muy ñi ñi seen borom natoo ñu mënuñoo wax mënuñoo dégg ñu leen di tudde ci réew mi muuma. li sabab seenum njàng itam mooy yàlla dafa maa natoon ki topp ci sama taaw Habibullahi eh, moom nag bi mënta wax itam teewut bi mu jàng it comme man ab jàngalekat laa jëpp ma ne daal sama doom dama ko war a wàcc rek muy wëndeelu noonu euh, ma doon sabab la ci sama na ngir jéem xool nu may def ba mu jàng euh, booba it fekkut ñu am ci benn expérience wala euh, ñu xamoon fenn foo ñu jàngalee ku mel noonu waaye damaa dëgërloo yàlla rek xam ne sunu borom moom li muy def bu ko soobee mu def ko ci ki ki mën a wax waaye bu ko soobee mu def ko ci ku mën a wax ci coobareem lay defee ak kàttanam bañ tàmbalee sunu borom li ñu ci ay bunti ju ubbi ko xam ne ni ñuy waxale kii dal baa ne ko neel baa mu ne baa nga ne ko neel siin mu ne siin nga ne ko neel miim mu ne miim moom boo ko waxee loolu du la dégg ndax du ko mën a wax waaye nag damay jël bant bi rek teg ko ci xarafu baa jox ko bant yaar ko ne ko teg ko ci xarafu baa mu teg ca bu ci tegee ba xam ne teg na ko ca ma teggi teg ci siin mu teggi teg ci siin mu teggee teg ci miim mu teggi teg ci miim day dem ba nga gis ne boo ko bàyyee araf bu yëkkatee bant bi dana ko teg ci baa bu ko yëkkatee teg ko ci siin bu ko yëkkatee teg ko ci ko yëkkatee teg ko ci ko yëkkatee laam bu ko yëkkatee teg ko ci laam teg ko ci hoo bu ko defee boo gisee xam ne mi nga ko def ci araf yi te jaxasewu ko rek ma eh, dalal sama xel ci ne kon li ma ko doon jàngal xam na ko. boo léegi nga def alif laam ra xaa miim alif nuun muy rahmaani bu ko defee loolu itam boo ko jàngalee ba noppi. am na lu ñuy wax test bu ne foofu maanaam lu ñuy wax tamarin ci wàllu njàng test bi mooy alif laam jàng na ko ci alif laam laam foofu bu ko damay bu ko jàngee booba gis xam na ko dama koy delloowaat ca lam jàngoon maanaam damay teg sama ban ci alif gi liyaar ko ne ko kii ban araf la bokk ci li nga weesu bu xoolee la weesu da ngay daal di gis mu yëkkati teg ko ci alif nga xam ne kon ko woo araf dugg na moom nga laaj ko laam mii nga jàng ban nga teg bant bi ci laam ne ko araf bi ban araf la bokk ci li nga weesu man bu xoolee la weesu nga daal di mu yëkkati ba teg ko ci laam nga daal di xam ne boobu araf dugg na. ci loolu ngay jàppee ne xam na ko ak bind gi mu ko bind gisu ko bu ko noonu lay def ci araf yi bu araf yi jàll bu araf yi jeexee ma ñëw moom ci masque masque yi kasaalika bu tàmbalee jàng masque yi masque bu mu jàngoon rek eh, dama koy delluwaat ci li mu weesu laaj ko bu ci bokkal bu ko defee bu ko xamee rek nga xam ne xam na ko. moom itam noonu la saa yi ko jàngee ba moom nga jàpp ne mokkal na ko da ngay dëpp lim doon jàng nëbb ko bindloo ko ci suuf mu bind ko saa yu ko bindee mbind mu aw yoon rek nga ne mën na ko. defee nag saa yu noppee ci loolu bu ko bindee ba du ca duñ ko duñ ca yem bëgg mu dëkk lim bind mu lim jàng mu dëkk da ngay jox alloo ak daa mu dem toog ne ci sa kanam du yor dara du xool lim doon kii de bindaat ko noonu te du ko gis. boo defee moom itam bu ko bindee te gisu ko mu indi ko nga xool boo amee ay njuumte yu ca nekk nga jubbantil ko jox ko mu xoolaat ko jàngaat ko ab diir bu ko defee loolu moom lay daal di dëgg allo jooju da koy jox mu jàngaat ko ab diir bi mu ko bindee ba noppi. bu ko defee woowu yoon daal ci lañ jaar ak ñoom di dem muy yokk di dem muy eh, yokk ba ñii nga gis ñu nekk fi xale yi am na ñoo ñu ngi bind sumun jàng bind sumun eh, bind bu tooy maanaam dañu xëy jël sumun jàng ko tari ko te bind sumun moom képp kuñ jàpp ne mën na koo jàng tari ko dañ jàpp ne kooku mën naa mokkal alxuraan kon ñoom ñi am na ñoo xam ne jàpp nañ bu ñu leen taxawoo mën nañu wattu alxuraanu karim nga li tax ma ber ko mu far féetewoo leen damaa rafet njort ci ne sax moom mi nga xam ne mënta wax xëy na suñu moom jox ko expérience mu mën a communiquer moroom yi nga xam mënuñoo wax ci loo xam sax man naa am ma am ko ci waaye mën naa am moom daal suñu moom jox ko ci xirañu boppam ndax suñu moom dafa dafay maye bu ko lool nag moo tax ma féetale ko bi muy door dama ko ci doon jàppale waaye daanaka dama mujj dama ko bàyyi ak ñoom rek waaye moom mi ngi ciy dox bu baax mi ngi ciy avancé bu baax a baax a baax. engrais xereñ sax ñiy tari lu ma ñett dañ taran dañ dañ wondoo ñiy tari te ku ci ne dañ la siiwër te li ngay tari dana ko bàyyi xel ba boo yàqee mun la yàq nga. li ñuy jàngale mooy day tari ci suuf tari boobu nag moom par benn baat la mën a doon ndax palaat bi yu bindee mën na jël lépp benn baat wala ñaari baat boo fee day bind baat bi maas ko def ca laayee ak suqee la ca war ba xam ne noonu la mu far bindaat ba ca topp mu far bindaat ba ca topp loolu laay wax ne eh, technologie weesu na foofu ndax mën nañoo am benn tableau boo xam ne lim jàng lépp rek bindandoo benn yoon ñu xool ko kuréel yoo xam ne baax na mu bës bu doon rek la far wala mu bindee ba mu fees mu bës bu doon mu far loolu am na. mais nag comme gu foofu itam li ñu am rek lañ jël fi mu ne palaat boobu bu ci par benn baat boobu ba mi àgg eh, lay lay doog a dem ci table table bi sax eh, luñ luñ yokk na bu njëkk daw dem ci table daan jël ëlloo dem ak daa dem bind ko ba mu àgg mu indi ko ñu corrigé ko ñu corrigé ko xool yi xataa mu kii waaye léegi table bi. Eh, mën naa taxaw nii nga xool mu daal di bind li mu bind lépp àgg nga war ko yéjee ay njuum te mu defar ko nga jàll ci keneen waaye loolu moom bu amoon na jumtukaay yoo xam ne moom moo gën a dëppoo njàng mi daal yaakaar naa njàng mi dana gën a yaatu dana gën a gaaw dana gën a yokk waaye nag eh, gannaaw dañuy nab nab yi itam fi ñu toll rek la ñuy moom di dox nang-nang bañ koy weesu. loolu itam jullit yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw war loolu di ba eh, créer fi social goo xam ne. ñoo ñi nga xam ne dañoo war a jàng te mënuñoo wax te bëgg a jàng te seen wayjur attanuñ ko ñu jàpp leen ci loolu kon julli ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ñooñu dañoo xam ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne wala ñu bëgg a jàng ñoo ne ci muuma yi seeni wayjur amuñu euh, kàttanu man man leen a fayal waaw loolu ku ci mën a jël sarti loolu moom dana am solo lool na am na ci wax ni bind yaakaar la toll nga xam ne moom lee mu wàcc kooku ci ñi ma lay wax am na ci ñaar sax kenn ki mi ngi wax la mu kenn ki mi ngi yéen am nekk si ñooñu ku ci nekk mi ngi jàng bindu sumoon te ragal nañ ne bu ñu wàccee it dañuy mën a bi ni'mati rabbika bi majnun